mu ànd ak mbooloo. mu bari ñu dal fa. ñu dal fa. am fay fan. am fay fan. ba yàlla def ñu gis ko fa. ba yàlla def ñu gis ko fa. ba ko ñu nuyoo. nee na ba mu ko fa séenee ñu nuyoo. ndek moo ndeke ba mu ma séenee rek. ba mu ko séenee. la dajale teraanga yu bëri. la dajale teraanga yu bëree bëri. indi ko indi ko. teg ko fa waaye moom gis ko. teg ko fa waaye gis ko. day mel ni bëgg woon gis. day mel ni bëgg woon a gis. def ñu far yàlla def ñu daje. ndeke itam. ndeke itam. bi ma gisee la fay hôtel bi. bi ma gisee la fay hôtel bi yëpp. <laughs> ak ñi ma àndal ak ñi ma àndal ñëpp. muy teraanga ju rëy. muy teraanga ju rëy. joo xam ne. joo xam ne. boole ca teg ca ne saa soo bëgg te ñëw. boole ca teg ca ne saa soo bëgg te ñëw. ak koo bëgg àndal ak koo bëgg àndal. wax ma ne bis sàngam laa bëgg a dem. wax ma ne bis sàngam laa bëgg a dem. bis sàngam laa bëgg a dem bis sàngam laa ko bëgg a dem. lii ma lay defal. lii ma lay def mu ne ko lii ma lay defal. sëñ bi laa koy defal. wallaahi bi laa koy defal. ndax xam na seen diggante. waxtaan nañ ci yow ba tey. waxtaan nañ ci yow ba tey. mu xam fi mu ko teg. xam ko teg. ak ni mu ma jàppee. ni mu ko jàppee. dox suñu diggante. ak li dox seen diggante. mu ne kon teraange jii mu ne kon teraange mu koy defal. daa jàpp ne moom laa koy defal daa jàpp ne si ñëpp la koy defal. mu ne loolu nag rëy na ci moom loolu. fekk na itam bët boobu laa koy xool. fekk na it moom booba rek la koy xool. ndax bu ko gisee. xelam ci moom lay ne. ndax xam ni seen diggante demewoon kon nag moo tax kóllëre gi bi seen xalifa wax dafa tàbbi ci dafa seen diggante ak moom ak yéenam ndax bëggoon ñëpp jaxasoo te suñ borom suturaal ko ci tam defal ko ci ndam defal ko ci ndimbal ndax ba mu jógee la jubbi ci xeex. la jubbi ci xeex. ba suñu borom defal ko ci ndam. ba suñu borom defal ko ci ndam. nee naa ci seere ci diggante ak Serigne Sidi Muxtaar. nee na dañu ci ci digganteem ak Serigne Sidi Muxtaar. ci boole. ci boole. bu yàlla def seen diggante. bu yàlla def seen ndax bi mu fi bàyyi ko. ndax bi mu fi bàyyi ko. daanaka ci laa yéege ne. ndax daanaka ci la yéege ne. seriñ bi. Serigne bi. daanaka nekkatu nekkatu nekkatu. suñu Cheikh Baara mi toog. suñu Cheikh Baara mi toog. seeral na ma ci jàmm. seereel na ko ci gàmm gi. loo xam ne sëñ sëñ Sidi Muxtaar moo ko wax ci sëñ loo xam ne sëñ Sidi mu ko sëñ Sidi Muxtaar wax ci sa ñëpp. wax joo xam ne neexut a nekk ci mbooloo. ne neexut ci mbooloo. ci ci fonkeel. ci fonkeel ak jàpp. ak wéetal gu ko wéetal. ak wéetal gu ko wéetal. ak wéetal gu mu wéetal jamono. ji. te ñoom ñaar rek a toogal. na loolu kenn mën ko weesu. nee diggante moom moom ñëpp xam na yéeg bi mu am ci moom. néew na mu am ko ci moo tax mënees ko fàtte kon nag sëriñ bi nee mu ngi sant bu baax. di fas ko lële bi. sëñ Diop ma di la sëñ bi nee na mi ngi lay xamal na euh, ni ñu fasante woon kóllëre. ni ñu fasante woon jàpp nañ ko jàpp nañ te fas yéene nañ koo jàpp ko faaw. tàbbal ko ci biir lool ndax xam naa ne sëriñ bi fa mu tëdd neex na. ndax xam na ni nga mel ci moom. ndax xam na ni nga mel ci moom. sëñ bi ko wax ne. dama laa fonk. dama laa fonk. suñu xalif xam ne ci dara. ndax nit day fonk la mu yor. ndax nit day fonk la mu yor. moom mos a jot wax na. fu commencé jot nee na wax ko ko. waaye loolu dal na la. waaye nee loolu yow loolu dal na la. ndax nit lu mu nekk. ndax nit lu mu nekk. fës cër. ba am cëb cër. ba am cëb cër. ba ñëpp xam ko. ko. loolu dafa am solo. te nee loolu lañ xam ci yow. ndax xam na ne doo koy ngistal. doo ndax jotaay ban toog. ndax wax na la wax na la ko. nee naa la man ku mën a xam nit la. nee naa la ndax waaw nee na la man ku a la. waaye ni la gisee. xam na ne nit ku dëgg la. moo tax mu gën laa tee. nee yàlla yàlla gën a saxal ko la. li ko ci metti xaw ma woon damaa jàpp ne ñett nit <laughs> daa jàpp ne ñett nit nga àndal waaw noonu la ko waxee woon sax ba ni mu agsee ci kër gi xamu ko waaye bu ma xamee woon na waaye bu ko xamee woon loolu. loolu mooy li ma ci naqari. nee na loolu daal xaw na. waaye nag boo liggéey. waaye nag boo liggéey. danañ ko ko jàppaat bu gën a boo xam ne dama koy xamee noonu. boo xam ne da koy xamee noonu. ba ni nga ko bëggee mu ko noonu. <laughs> nee na jàpp ne da ngay accès ngeen gisante. ne yàlla xam ne noonu la ko jàppal. nee na loolu rek la ci am na ko métti waaye bor la boo xam ne dina des a fay incha allah jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke nag ñun ñoo ngi lay ñaanal bu baax waaw waaw ñoo ngi lay ñaanal suñu borom yàgg la moom itam ñu ngi koy sant ñu ngi koy na li ngay def lépp te bëggu kenn ku ko ko xam waaw yàgg naa a wax li mu ne ma ñëw si ndax ndax dama a tey moom mi sëñ bi ñu ñaanal ko bu baax ndax yoonu murid wax ma Sénégal yëpp si moom yaakaar yal na suñu borom